ahlan bikum du foroxu wolof njaay a ko wax waaye ku weddi laajal njiit réew mi Macky Sall tontu na Idrissa Seck ak Thierno Alassane Sall bii dal ci kawam di ko song ñaawlu liggéeyam zoom yéene ka ay ñu ko xamal a yaw seetal njiit réew Macky Sall daal fa dem Thiès wax responsable APR ya na leen li ma leen di sant daal na ngeen liggéey bàyyi kat yi di wax te la ñuy wax bu leen ko yëgal sax seen yaram waxuma ak di leen tontu Aline Fall kenn ci ñuy xelal njiit réew Macky Sall na ko ñii bu leen tontu am nga ñu la tontul ndax yow doo seen morom doo seen màppandoor li ma bëgg daal ñoom ñu xam ñooñu di dal ci sa kaw buñ foogee ne da ragal defante ñi ngi nax seen bopp de kenn dàqul la ñàkkante kuy gémmañam di naaj ci nag du wax jàmm moo tax ci wax xay la dëkk te xamuñu sénégalais dañ leen a jéppi ndax si jamonoy Ablaye Wade muut lañ defoon léegi nag ñuy taltali moo tax ñun dañ leen di tontu ki bëggoon a tontu attekat ba a wal fajëri yéen a kaay yeggee ñu ko ak la laxasu ca mbir ya diggante ñàkkante réewum Chine ak Amérique moo nar a gaajo laas yéen a kaay ko xam nga lan moo tax ñu toxal xatte bi avocat gaajo yi ñoo sàkku ni mel ngir seen client bi fekk leen New York ñu mën a wax ak moom réew mi yéen a kaay dañu xamal fi nekkoon njiiti réew bu Mali Amadou Toumani Touré gannaaw juróom benn xat mu nekkoon ci réewum Sénégal dana ñibbi dellu réewam ñiy génn réewum Sénégal a rapport ba ñu xarañ ñuñ ko dénk sax matut ña fa nekk fa ñuy tandus la ñuy def presque xamuñ ci dara moo tax jafe-jafe yi di gën di bari jafe-jafe askanu Sénégal rawatina Ndakaaru ci ndox mu sell mu ñu naan léegi tey mu féete ginnaaw aa seetal njiit réew Macky Sall door na ñetteelu usine bu kër Momar Sarr ci wàllum ndox mi ñaar téeméer juróom-ñaar fukk ñeent ci ay milliards lañ ci dugal fi ak ñaar fukki weer ak ñeent nag diggante Dakar jam ñaajo Thiès bu Mbuur ndox moom dudu fa manki juróomi junney njaboot nag danañu am ndox mu naan loolu baax na li baaxu te réewum France def ko muy émigré ya jàpp réewum libi def leen ay jaam ni ñu ñun la di leen jaay lu ji njaaga France jaag mbootaay ñi taxaw émigré yi ñoo ko xam le si si du quotidien ñaaw lu doxalinu France ak seen président ba na ñooy matt di ëf te lu baaxut leneen lu baaxut muy jéem a yàq Maroc dugg gi bëgg a dugg ci CEDEAO ab document bu ci am na leen yéen ngeen Samb ak Fatou Wam 20 décembre 2001 Tanor ci la tudde woon seen dalwaay PS ba Senghor 1er décembre ci la Tanor génnoon ci Benno Siggil Sénégal taxawal Benno ak Tanor 14 décembre 2017 ci la Khalifa Sall jàkkaarloo nag attekat bi kon nag weeru décembre mooy weeru PS am nañ ci mbégte am ci naqar les écoles yéen a kaay na xaw tuuti ñaaw ca Ndakaaru golf xam bomb la ñu waxoon fa gis gaañ a tiddi yuuxu ndekete du Pro bëreel beneen promoteur contrat am Assane Ndiaye ci lay jeex li jeexakut ba léegi mooy tooxi doona bi ma leen fi waxoon na benn waay bu ñu wax naan sëriñ daara la ne dafa yegg ci juróom benn taalibeem ba ñettee dem hôpital tey nag l'observateur leeral na yëfi nañ ñi aa yaaw seetal waa ji see jóob la tudd ma nga dëkk kër sëriñ Mbay ab quartier la bu nekk njaareem ay mbokkam ak dëkkandooram nag ci yéene kaay nañu waa ji yóbbu nañ ko hôpitalu Fann ku naan sëriñ daara la àdduna bi léegi ñooy mbubboo def lu bon di ko askanale diina lislaam la fa la ñu bokk moo bari te lislaam xamul leen jegewut leen ñoo am seen mbon rek